Sonko di saaga magistrat yi di leen wan yéen du ngeen dara dañ leen jënd ñuy wax mu attaqué le haut commandant de la gendarmerie le général Moussa Fall lu yoonam et puis c'est-à-dire complot amul lu yooni gendarme ci ku jóg génn këram guddi làqatu ay garde corps am làqatu chauffeur am nëbbu ay jabaram sol capuchon nëbbu kanamam dem ci benn lieu boo xam ne ci couvre-feu bi heure boobu ñëpp war nañoo wàcc ñu forcé ay jigéen ñi di ko nekk pour raay mbelle une de raay mbelle raay sama raay ce qui est plus plus plus plus plus plus man sama ndigg lay métti sama ginnaaw gi da daan métti ba ngeen xam ne mën a mën a tëdd couvre-feu lu muy métti métti ñu aay ñu génn man mënatu ma tëdd bu ma dalee depuis ba du ma mën dara damay jox faju ji waaw docteur Adji Sarr fan lañ ko formé ban ban université ban faculté de médecine ban ba fu mu jàngee kinésithérapie waa dëkk ba waa dëkk ba fële ca booru fa dëkk jir naa xaw ma noonu. foofu la ñu ko jàngalee dafa mel faj euh, ponkal moo xam ne ginnaaw mooy ñàkk fayda sa ginnaaw di metti guddi mënatoo koo muñ docteur Adji moo lay faj yéen Sénégal yi génn dee pour kooku di wax dof yooyu waaw yeewu yeewu yeewu leen réveillez ceux qui le suivent aveuglément, comme un Dieu, doivent faire attention. Le commandant de la gendarmerie, le général Moussa Fall, comment peut dans le complot Il l'accuse. Bon complot, moi, mais le complot. Donc, on l'a menotté, Sonko. On l'a sorti manu militaire de sa maison pour l'amener au salon Sud Beauté ou bien c'est lui qui est allé directement au salon Sud Beauté à l'insu de ses gardes-corps, de ses et de son chauffeur. donc où est complot dont il parle waay waay waay Sénégalais yi yeewu leen yéen nag ku doon nalaw yeewul ku jóg guddi ku wër fa am ñëpp ngi tëdd kenn du génn. comme moom député am na droit génn mu génn salon de poteau yeeg usines yeeg boutique yeeg tëj ñëpp ñibbi nañ moom nag il faut ñu nekk ko ba mu ñëw moom le roi Sonko le prince de la nuit l'homme du kowul feu le violeur du couvre-feu le violeur du couvre-feu il a violé le couvre-feu pour une séance de ray séance de massage à la Adji Sarr mais Sonko le complot yéen Sénégalais yi complot bi ay Macky Antoine Diome ak léegi général